Sango Guma Sango Guma TV La vie de couple Sango Guma TV Sango Guma Sango Guma TV La vie de couple Sango Guma La vie, la vie, la vie La vie, la vie, la vie de couple Leng leng mo mu bëgg ma Leng leng mu sori ma La vie, la vie Mon ni lay dundee La vie de couple La la la عبدك كل vie, la vie, la vie, hey, hey. la vie, la vie, la vie de couple. Leng leng mo mu pagma, leng leng mo sorima, la vie, la vie, money lai dunde, la vie de couple. La la la la la La vida kukul Sanggo Sanggo ñu ngi leen taxaw yéen ñi ëpp ñu bu ngeen taxaw fee ñu nekk ginnaaw doo gis. Hello. li ñu muy association ànd dooleel Sango Gouma TV yàlla di ay ndaw yoo xam ne dañoo dajaloo fas yéenee jàppale Sango Gouma TV waaye itam nag ci jàppale googu nag yëmut ci biir Sango TV ndax groupe bi am nañ ay natt social yoo xam ne dañ koy amal. comme ni ñu ko woon bi ñu doog a tàmbali groupe naa du li ñu yëpp jëmu ci poosu bay ci poosu kenn poosu association ànd dooleel Sangoma kon képp koo xam ne yaa ngi si biir Sangoma TV bi loolu ci nga bokk loolu nag lu ñuy natt chaque fin mois ñu leeral ko fii su ko defee ñi nga xam ne xamuñu woon ñu xame ci ñi ci xamoon itam kon ne xamewaat ba léegi ndax groupe bi ñu ngi ko créé woon 2019 di bàyyi jiw bay def live ci série doomu buur entre Nara live boobu nag moo indi groupe Fans Club Sangoma TV bañ ko defee wax dëgg yàlla retoon ko benn yoon ndax ay fans bàyyi jiw ñëpp a ngi fi ak képp kuy bëggee Sangoma TV loolu nag ci bàyyi bi nga xam ne mooy waxuma sax doomu Tuubaa waaye doomu Sénégal àdduna war na sama bu ma TV nag àdduna bi yëpp di ko bëggee biir réew ak bitim réew ñu am ay section yu bari comme ni ñu ko mooy centrale bi Touba ak Dakar ak Louga ak Mbour Kaolack ak Touba Mbar jur yooyu yëpp nag ñu ngi mars di def normal te it naa ne su fekkee ne dañoo am ay caaxaan dara lu tuuti rek njot naa ne lii du am te yàlla xam na ne ay kilifa ñoo ci fees del ay borom daraja ñoo ci nekk fees del te lenn waralu ko nag li nga xamal ni moom lañ tuddee groupe bi ak li nga xam ne mooy titre bi dëgg-dëgg te mooy social. social boobu nag wax dëgg yàlla dama ciy insisté bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoo nekk ci biir ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir te bëgg a nekk ci biir ak ñiy waaj a ñëwaat ñu la nga xam ne moo tax a jóg association ànd dooleel sango bu mat TV du dañuy natt weer dee ñu natt at mi dee ñu daje seen noose ko tëggee ko sabar fecce ko musique dee loolu taxu koo jóg bien vrai que nag suñ ñëwee war nañoo dem suñuy fan defal ñoom benn yenn waxtaan ak ñoom ngir waa dëkk ba nekk xam ne kat ñii ñi ñu topp am nañ ci ñoom yëg ndax fii comme ñoo ko waxee woon ñëpp ay borom responsable ay borom kër ñoo fees dell kenn ku nekk da ngaa dagg sa yitte Touba Ndiaraw maa ngi leen di ziar bu baax di leen jox seen wàccuwaay di nuyoo ci turu Box Club Sango Gouma TV di ci jiital suñu borom dëkk bi maa ngi koy nuyu bu baax suñu maam jooju di ci teg bàyyi góoram mag moom mi nga xamante ni moo ñu permettre tey ñu am autorisation ba ñoo toog fii nii maa ngi ziar ñëpp koo képp koo xamante ni yaa ngi toog fii nii maa ngi lay ziar di kontaan bu baax nag ci association bi nga xamante ne nii daje nañ tey ba réaliser di li jiita di di ziar bu baax tamit suñ jiili mi Mara ñu koy wax Mara ak képp koo xamante ne yaa ngi toog fii ak képp koo xamante ne nii mi ngi ànd ak Mara mënu ma lim yëpp ndax ku lim di nga juum maa ngi ziar ñëpp di yéen ñi nga xamante ne moom taxaw ci topp bi rawatina Matar rawatina Pape Ndeye Ndaw yéen ñëpp Xaadim Mbaay képp ku ma waxul rek juum naa moo taw maa ngi lay ziar bu baax di ziar Adama Sarr di nuyu ñëpp képp ku ma limu sa tur rek xamal ne xel moo matul maa ngi ziar ñëpp bu baax a baax di kontaan bu baax ànd ak mbégte ci li nga xamante ne nii lépp lañ doon rêvé bu yàgg ba tey ji ñu réaliser suñuy rêve maa ngi leen ci nuyu bu baax di am contentement parce que tey bu leen neexoon du ngeen ñëw fii nii mënoon ngeen xale la du tax ñu déplacé wu mais bañ leen waxee dañoo dagg seen i yitte te tey ñu ci bëri amoon nañ ay programme mais dañ leen ci sant di leen gërëm programme yëpp ñu ñëw teg suñu kon nag nañ leen félicité bu baax a baax ñun ay xale lañ ñun ay jeunes lañ nañu jàppale ngir ñu dem te lii ñuy def duguñ ci ngir affaire da ñàkk fayda de tax bu fekkoon ne affaire da ñàkk fayda la ñun ñi nga xamante ni ñoo bokk ci yi ak ñi nga xamante ni bokkuñ ci yi tey duñu taxaw fii na seen liggéey nañ ci farlu 500 francs par weer bëriwul carte membre yi nga xamante ne ñun ñoo ngi koy ñoo ngi koy ñoo ngi koy jaay bëriwul parce que nii yëpp kees la amul ngay doog a ñëw tey amul dafa nekkoon démb ñun ñëpp képp kuy doog a ñëw tey dama ko wax dama ko joxe ci misaal xaalis bi fa naroon di nekk ci nga bokk kon nañ tànn ñi nga xamante ne ñoo ñu fekk si Touba Ndiara. sangoo ko leen ngeen wala sangoo ko ah. eh am non man dégg ma de sangu ngeen wala sangoo ko waaw kon tey ñu ngi Touba Ndiaro tey amul sangu xam nga ñun ñëpp dañuy sañ sa ba jekk te kenn du sant. donc coono buñ man di daj ci liggéey bi fay ngeen ñu ko quoi parce que tey bu ñu xoolee Sango Gouma TV dafa am ay nit ñu bari ñoo xam ni ñoo taxaw di ko bëgg euh, donc waa YouTube bi YouTube ñoom ñoo créé fan si club Sango Gouma moy law di law ba arti Touba ndiaro donc ni mu ñëwee fi ëlëk wa Mbour dañuy xewlé donc fan si club yépp dañuy déplacer wu dem ëlëk wa lu ko xewlé bu ko defé ñun connaissance bi dafay dox suñu diggante ak yéen da dafay yoon nak di yell képp ko xamni yaangi bëggé ben Mara wala ben nara wala ben Papis wala ben sindri keneen ak keneen ak keneen ak keneen noonu tey nga am. mbégte pour di saafante ak moom pour di xamante ak moom loolu moo tax li ëpp ñu carrière yi waaye bàyyi leen xel ni ñii ay jigéen lañu donc loolu leen mën a jàppale nañu ko def euh, fa taxut ñu koy def wala caaxaan wala dara ginnaaw ci yàlla bu ñu foo taxaw na jug ah bu ñu déplacé wu ay kilomètres ñëw fii kon tey mbégte mi ñu am tey nag mën naa ne gëj nañu koo am ci sunu àdduna ndax taxawaay bi nga xam ni euh, fan si club bi taxaw na ko donc nag di sant borom dëkk bi bu baax a baax parce que lu mel nii bu amee daf ca jàpp ndax peccum lii bu neexee nday jaay jàpp sa mbagg ya ñu ngi sant yaayu nday njaay bu baax gis nañ taxawaay bi laataam ñuy ñëw jot nañu téléphone waxtaan nañu ak moom waxtaan bu yaatu li nga xam ni bëgg nañ koo def euh, donc ñu ngi nuyu kii mooy euh, coordinateur moom moy porte-parole bu Sangoku Mat TV ci section yëpp nag président baa ngi nii moom mooy président ba Touba ak euh, waa fans club bi nga xam ne ñoo jógee Touba maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ak ñu jóge ñëpp donc dañu jóge ñëw fii ngir jëmmal leen waaw xam nga lan laa bëgg nag benn par benn benn benn ci digg bi waaw waaye Sango Guma Sango Guma TV La vie de couple Sango Guma TV Sango Guma Sango Guma TV La vie de couple